de nous retrouver mesdames et messieurs amis internautes de Sénégal set TV ñu ngi leen di jëfal bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak Sénégal 7 TV nii lay demee saa su ne dañ leen di andil ndaanaan wala ñu ñëw indi wala ñu ñëw fekk si ndaanaan daal di leen koy tegal sur table tey nag dama andi koo xam ne ku spécial koo xam ne jamono ji mën naa ni mooy daaneel xale góor yi koo xam ne laaw cat bàjjanam da koo dàmp ba mu baax ki nga xam ne temps yi macha allah dafa xew kooku ñu ngi koy wax Big Maman Big Maman maa ngi lay nuyu. man de Faye Aïcha ci loo nekk. maa ngi nii yaa def nii kontaan naa ci yow de. te di ko xeeb ci loo nekk. maa ngi nii alhamdulilah. nuyeel ak mbokk internetu Sénégal 7 TV. salaamaaleykum mbokki ak xarit yi ñu ngi leen di nuyu ñëpp surtout ñu seetaan fii à travers. Sénégal 7 Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen bëggee macha allah. <laughs> Big Mama nag ni ngeen ko gisee nii muy benn benn noonu la garaawee xale bi musul sem Big Mama li ma bëggoon nga wax ma ko internet yi balaa dara di xew mooy kan mooy Big Mama. Euh, Mama benn xale bu jigéen la rek bu nekk ci benn série Mœurs. Mhm. waa di fa jouer benn rôle boo xamante ne xam naa ne neex na xale yi. déggal loolu. <laughs> waaw kooku mooy Big Mama. lan actrice la rek. lan mooy vrai turu Big Mama. Yande. Yande. ah sama sant ah, mais garaawul xam nga mbokk internet yi dañoo bëgg a xam ñu ngi lay seetaan xam nañ ni Big Maman du sa vrai te bu ñu sañoon ñu xam sa vrai tour daal la koy woowee. waaye mooy Yande Tukulër rek nañ ma woowee Yande Tukulër rek. kon mbokk internet yi yéen ko déggandoo Yande nee na dee leen koy woowee Yande Tukulër mais Yande li ma bëggoon xam mooy. nan ngay dundee euh, vie wu mën naa ne vie star la parce que léegi macha allah star nga parce que ñu ngi lay gis ci télé ñu ngi lay gis fépp foo romb dañ naan kee mooy big maman nan ngay dundee loolu. ah c'est pas difficile de moom c'est trop facile la hmm, ni ma koy dundee moom c'est trop simple vu ko nit laa comme nit ñëpp. Euh, mm-hmm. te it euh, pour man nit nit rek la mun a doon star ak siiw ak benn la. damaa jàpp ne benn nit ordinaire la rek Yandé ak Big Maman lépp laa yemale franchement gisuma changement ci man ni ma doon dundee rek noonu laay dundee ba tay mais Yandé euh, gis nañ li ngay dund li ngay li ngay dund ci euh, série bi parce que gis nañ ni série bi mën nañ ne euh, euh rôle bi ngay jouer rôle boobu noonu dafa jéggi dayoo parce que mën nañ ne ngeen baal ma ci kàddu bi rôlu caga la. Mm-hmm. nan ngay dundee loolu ak euh, nit yi boo génnee ndax duñ ne yànde mooy loolu walla nan nga koy dundee. ay Aïcha du rôle caga sax xanaa doy seetaan film bi. maa ngi koy seetaan bu euh, baax la. Mhm. bañ na ko ba ci ñuy ñuy joué film bi ci biir ñu ngi expliquer parce que épisode bi passé si yaaraam yi wax ak ñun naan ñu ñun duñu ay cagatu duñu ay raykatu nit. juste que ne dañuy dem di cambrioler parce que ku nekk dafa am loo dund la naqari loo xamante ne xam nga. moo la dugal ci ngay doon ci nga doon bandi bu ñu bëggee lu ñu lekk dañuy dem di def ay cambriolage di teg ay dil di jël ay xaalis suñu ñi loolu lañuy def di mbaraan di jël xaalis mais pas roolu caga lu tax ma ni roolu caga parce que gis nañ ni benn épisode euh, am na benn euh, kilo ku la jàpp def ne la ani caga ak kaas ay droit Euh, parce que xam nga tey nit bu ñu la jàppee police. Mhm. dañ lay wax lu mun a naqari sa xol pour nga wax. Mhm. boo xoolee policiers yi tey buñ la jàppee. Mhm. dañ lay wax loo xam ne dañ lay da lay ñëkloo pour nga wax loolu moo taxoon ñu wax ma loolu parce que instant boobu ñu ngi ma bëgg a bëgg ma wax woon wax moo tax ñu tuddee ma de traité ma de tous les noms pour ma wax léegi man nag dama muus ndax xam naa ne dañ bëggoon wax moo tax ñu naan ma caga nga ak fenkat nga mais lépp dama doon rey rek te xam ne li nekk sama xol du ma ko mës a wax. dëgg moo tax dañ ma bëggoon merloo rek pour ma wax. léegi yow euh, nee nga rôle bandi ngay joué. Mm-hmm. nan nga def ak sa waa bu ñu seetaanee ni yaa ngi joué rôle bandi ndax loolu méttiwu leen. non non méttiwu leen parce que nit ku nekk xam nga sa doom te nit ku nekk xam nga ki nga dëkkal. juste que ne xam nañ ne benn rôle la rek bu may def vu que actrice la te benn yére bu may sol la rek loo xamante ne bu ma eggee damay doon ma maman bu may ñibbi damay doon yaande dama koy simbi xam nañ ne rôle buñ ma jox la rek te dama ko war a jouer xam nañ ne kooku du man bañ nañ ko ba ñu may seetaan may def affaire u bandi dañuy ree sama papa daf may woo ci saa si di ree naan ma mënuma gëm ne kii yow la parce que xam dañ doon dañu yaakaaroon ne bi may dem duma mën a jouer rôle boobu parce que xam nañ ne tout le temps dañuy naan man dama yambar dama tapet dañoo jàppoon ne duma mës a jouer rôle boobu ba biñ may defal casting loolu lañ ma wax yow est-ce que yaa ne di nga mën a ku ñu laaj dañu naan yaa ne dafa yambar bëggul histoire xamul problème man leen si dinaa ko jouer après ci laa ko jouer réussir ko. yaa ngi wax euh, bi ngay def casting bi ngay dem defi casting ñoom lan moo gën a tax ñu ñu yokk la jël sa forme walla taar bi nekk ci yow lan moo waral ñu jël la. bi ngay defi casting parce que gis nañ ni casting boobu ay jigéen yu bari def nañ ko. ñu mhm. tànn la yow lan moo waral ñu tànn la. casting mën na am physique. Mhm. may tamit role bi danga koy danga koy jàll parce que xam nga man kese meluma nii Sénégal Sénégal ñoom ñëpp a taaru xale yëpp a jongoma mais laaw la cat gis sa forme macha allah xale góor yi ñu ngi koy tudd bu baax loolu moo waral ñu jël la wala lan moo tax ñu jël la. exactement non non franchement parce que man bi ma demee sax ñoom bi xooluñ sax ay forme ci man damaa dem ñu jox ma benn rôle ne naa ko joué ci laa ko joué ma dem toog ñu woowaat ma ma defaat beneen rôle ma joué waat ko après ci laa ci la jàll ñu woo ma ne ma ñu mën naa ñoo def ko. damay ñëwaat ba tey ci rôle bandi bi est-ce que mosoo dajeeg nit. mu jote ak yow wala mu saaga la wala mu xas la ne la bàndi nga wala dara nga musu ah, musu la dal franchement musuma dal musul am au ku ma dajal danga may béggee ñu kafre ma pare ma dem musuma gis nit xas ma musuma daje nit mu wax ma lu ma naqari wala dara loolu moom musuma dal ba ci commentaire euh, Facebook wala Instagram amul ku la saaga wala ku la wax lu la metti comme man du may xool sax commentaire mais jàpp naa ne loolu mënul ñàkk parce que nit ki showbiz moo mel noonu showbiz boo ci nekkee doo du ñàkk des fois ñuy commenter ci yow mais yow ci ngay xool ci commentaire yooyu nga gën a góorgóorlu parce que dama jàpp ne kuy wax ci yow dafa bëgg rek nga changer mais du dara commentaire yi man jàppee ma ko dara juste que ne xañ na dañuy bëgg rek ñuy changer wala ñu bëgg Sénégal gën a jëm kanam rek léegi ñun dañuy xool ci commentaire rek ñuy gën a góorlu rek sénégalais ñoom lu ñu bëgg rek moom lañuy def ñun ñoom la ñu am. Euh, yande li ma bëggoon xam mooy damay ñëw ba tey ci rôle yi ngay joué. Mm-hmm. yéen gis nañ ni groupe de sept filles ngeen. Mm-hmm. bëri na am na yeneen groupe de sept filles aussi yu fa nekk boo ko boolee muy quatorze gis nañ ni àndandoo jigéen chaque fois problème dafay am est-ce que yéen juboo ngeen entre en en dehors de en dehors du tournage ndax yéen am ngeen entente yéen a ngi waxtaan. lan mooy seen relation en dehors du tournage. ah loolu wax la rek ndax lépp loo gis moom xam nga nit ki fépp foo dem bu fu yóbbee maturité rek problème du am ñun ay sept filles lañ te ñun ñëpp benn lañ macha allah bañ na ko ba dañoo def groupe de sept fii dañuy waxtaan tout le temps des fois dañuy génn des fois dañuy dem Magic Land ci xale di foo dañuy déggante dañuy nekk tout temps gisuma kenn am problème entre nous macha allah bañ na ko ba bu ñu nekkee en groupe sax bu kenn ñëw dañuy mer. dañ naan lu tax ñëwut te ñun ñëpp dañoo war a ñëw nekk fi ñun ñëpp dañoo war a waxtaan bu ma ñëwee tournage bu ma solee sax yére bi nga xamante ne baaxul kenn si ñoom day bi valise am summi ñëw ne ma am jëlal solal bi lii moo gën a ànd ak lii franchement gisuma ñun suñu diggante dara loo xamante ne lëj na. nee nga soo solee yére damay ñëw ci yére yi ngay sol yande gis nañ ni à chaque fois da ngay sol yére yoo xam ne da ngay valoriser sa forme. Mm-hmm. yow la neex wala loolu mooy sa look <laughs> wala da ngay bëgg à chaque fois ñu naan big mama big mama non même pas xam nga am na noo xam ne bu la ko yàlla bindee mhm. loo sol lay feeñ loolu yàlla moo koy def ci nit maa ngi ne gisoo li ma sol pull ak jean ba ci kaw te taxul ne li war a feeñ dafay feeñ rek mais ba tey comme ni ma la ko waxee rek xam nga nit mën nga doon xale di sol yoo xamante ne peut-être da jàpp ne xale laa mën naa sol lu ma neex mais am na âge boo xamante ne boo ci tollee wala booy def dara loo xamante ne sénégalais yëpp dañ lay seetaan yow ci sa bopp da ngay da ngay xam ne il temps nga changer. yow daal loolu nga gis. loolu mais solu woo pour génne sa forme pour wane ni yow macha allah da ngaa jekk. non jekk moom yàlla. da jaayoo daal. non jaay <laughs> jekk moom yàlla moo koy def ci nit loo sol yi dafay génn. Yandé damay ñëw ci jaayo bi ba tey <laughs> yande gis nañ ni euh, récemment ñu ngi dégg ni yow ak benn artiste dangeen ngeen di génn benn woykat Bambaly Seck gis nañ ni yéen ñaar da proche ñëpp ne nañ yéen ñaar da ngeen di génn lan mooy sa relation ak Bambaly Seck dangeen ngeen di génn walla génnoo leen. Euh, Bambaly day musuma xoolee bëtu mbëggeel man it musuma kaa xoolee bëtu mbëggeel Bambaly sama frère la sama xarit la. avant clip bi ñuy def sax man ak moom dañoo xamante woon nekk ay xarit fu ma romb su ma taxawee sax mu jël xaalis bu bari dugal sama biir poche mu bëgg ma rek te yàlla tax muy def clip mu woo ma ma ne ko jarul nga may fay ñaar dërëm mu wax ma ne ko duma laal parce que teraanga teraanga moo koy fay. mais Yande yow noboo Bambaali Seck. non Bambaali sama frère la Bambaali man ak moom. sama dama loolu de ñu ne ma Yande daa nob Bambaali Seck. <laughs> non xam nga nit ñi dañuy wax rek lu leen neex Bambaly sama frère la Bambaly ci boppam xam na ne man sama frère la bu amee plaignant des fois sax maa ko ciy génne. <laughs> damay ñëw ba damay ñëw ci loolu ba tey. Hmm. Yande li ma bëggoon xam mooy Yande musicien bi lay génnal Yande manager bi lay génnal Yande euh, animateur bi lay génnal Yande kan la ciy génnal ci ñooñu man laa bëgg xam. kan mooy musicien bi ak kan mooy animateur bi ak kan mooy woykat bi. yande li ma la wax leel na naññ dama ne la yande ba yande yow animateur bi ngay génn wala manager bi ngay génn wala musicien bi ngay génn ci loolu laa bëgg nga tontu ma ci. mais franchement maa ngi lay tontu Aïcha danga ma ne animateur bi. animateur bi wala musicien bi. wala manager bi kan nga ciy génnal ci ñett ñooñu. yow ñeme nga li ngay wax te danga maa indi fii. pour non affaire du affaire ñeme. pour Sénégalais xam nga ñun xam nga ñun Sénégal set laaw la cat dañoo mën a lijjanti information fu ne la ñuy lokatee gis nañ ni Yandé dégg nañ ko ak benn musicien Yandé dégg nañ ko ak animateur yande dégg nañ ko ak manager mais dama bëggoon xam ñetti ñooñu kan nga ciy génnal. musicien bi danga ma ne Bambady la. yeneen ñaari tur yi du ma ko wax. ma xamal la ne man xaw mag Bambady léegi yow du musicien bi léegi animateur bi ak manager bi kan nga ciy génn man xaw ma sax ban animateur ngay wax xaw ma sax ban manager ngay wax am nga copain wala amoo copain. Ah, loolu mënul ñàkk. ki ngay génnal laa bëgg a xam kan la. mënoo ko xam ay yow. mais comme mënoo ma léegi loolu yëpp léegi loolu yëpp garaawul dama bëgg a xam Yandé ki ngay génnal lan la. ndax moom il est wala moom kenn xamu ko loolu laa bëgg a xam tey. Yandé ki ngay génn kenn xam ko. <laughs> xaw ma ki Yandé di génnal mais Yandé nee na kenn xamu la bu fekkee nag dañ laa xam jugal ci loolu Yandé damay ñëw ba tey ci mm-hmm. euh, tournage yi ngeen def mm-hmm. noo dundee euh, nooy nooy dundee tournage yi ak euh, kilifa yi ñi nga xam ne kilifa lañ ci biir série bi xanaa respecté leen rek jox leen cër parce que mag buur la te foo ko fekk danga kaa war a respecté ndaxte ñun ku ci mel ne papa mhm. ak Ibou Guèye ñun suñuy papa te bëtu doom lañ ñu xooli ñu ñëpp nag suñu ay kilifa lañ bëgg nañ ñu fonk nañ ñu te dañ ñu dañ ñuy même burul ci film bi sax dañ woo duñu yeet. mais est-ce que mosoo leen ñëw tournage ngeen solu solu boo xam ne tegul yoon benn kilifa ci ñi nga xam ne ñu ngi ci série bi ñëw corriger leen na leen lii ak lii ngeen lii ak lii ngeen sol baaxul. ñoom si corrigé ñu lañu dëkk ñoom tout le temps ci corrigé ñu lañ dëkk dañuy wax nu ñuy solo nu ñuy doxee ak ni ñuy waxee tout le temps nag franchement dañoo jàppee comme seen ay doom seetaanu ñu benn yoon nee naa même bu dul bi sax tey bu ñu snabee solo dul yoon sax dañuy woo téléphone tey li ngeen sol ni bu leen ko solaat. mais Yande dégg naa la ci sa benn interview nga naan defuñu lu bon waxuñu lu bon donc. Euh, waru waroo waroo waroo leen tiit waroo leen ragal mais gis nañ ni am na ñoo xam ne ci biir série bi ñu ngi dox te ay jigéen lañ est-ce que loolu tamit du problème. mais loolu rôle la rek ay Aïcha xam nga tey euh, comme bu buñ la joxee benn rôle yàlla xam na ne peut-être sax ñoom balaa ñu ko def dañuy sonn xam nga tournage dafa métti mën nga nekk benn 30 minutes di tourner benn séquence. xam nga tey sénégalais benn benn action lañuy gis rek ñu foog ne peut-être ñooñu ay tuxkat lañ walla dara mais tey bañ na ko ba bi ñu defee tux yi dañoo bind ci suuf euh, que fumer c'est pas bon comprendre nga kon xam nga ñooñu dañuy yeete te boo xoolee ñun suñu film bi yépp actualité la te demee dañuy yee ndaw ñi comme dañoo bëgg a won ne xale yu jigéen ñi ñu ngi nekk ay bandi bu ñu paree ñu ngi sol seen yére di génn te doo leen xam. mais est-ce que am na ñoo xam ne dinañ xalaatee ni yéen li ngeen di def euh, yeete kese la parce que tey jii euh, nit mën na bëgg Big Mama Big Mama ñëw sol loo xam ne ci film bi mooy loolu te cigarette am donc su génnee danaan Big Mama nii la mel kon man noonu laa war a def lan mooy wane ni Big Mama au fond ak ni muy dundee euh, naturellement melul noonu. Ah, Aïcha gis nga nit booy seetaan télé bu fekkee da ngay dund film bi dund ko sa biir xool rek da ngay jàpp ne li réalité la mais bu fekkee ne yow da ngay xool. Mhm. seetaan ah xam ne lii film kese la dafa may dal man sax te fois damay seetaan film nga xamante ne dañuy rey ki nga xamante ne mooy sama fan ci film bi damay mer dama na bàyyi naa film bi xam nga film dañ koy dund dafa di loo xamante ne dafa naturel. mais bu fekkee boo bàyyee sa xel ne man film rek laay seetaan après yow di nga comprendre di nga xam ne ah lii film rek la. léegi bu fekkee ne da nga seetaan film gis nit ki di tux nga dajeeg moom ci mbedd gis ko muy tux boobaa mën nga kaa juger mën nga ne kii kon nii la mel mais bu fekkee yow mosoo gis muy tux wala mosoo dégg ne mu ngi tux te mu leer na dañ ci film rek nga ko gis mu tux da ngay xam ne rôle bi moo ko laaj rek mu koy def mais yande xamal lan mooy problème bi. Hmm. amaana nit mu ngi lay seetaan. mu ngi naan kii mooy Big Mama. Hmm. mais xamul réellement kan mooy Big Mama xamul fan nga dëkk xamul fan la lay mën a gisee donc loolu ça problème. parce que tey jii euh, mën nañ ne bu njëkk ba. Hmm. soo daan tourner sketch da koy tourner pour yeete. Hmm. mais tey jii boo ñëwee andi rôle lu tox. Hmm. duñu jàpp ni lii day yeete parce que man je man gisuma nit jouer rôle lu tox lan la si yeete. si parce que tox baaxul Aïcha. mais tànk yaa ngi koy def ñooñu mënuñu xam ni tux baaxul mais bu fekkee dañoo def tux dañoo gis ñuy tux ba pare ñu bind ci suuf pour won ne la ne tux baaxul nag mais xam nga ñëpp jànguñu ñëpp jànguñ mais aussi tamit xam nga tey yow mën naa di seetaan télé suñu kër ñun ñëpp nekk di seetaan xanaa ñun ñëpp duñu ñàkkaa jàng tey man bu may kaas naan lu tax kii di tux keneen ki ne ne moo xanaa gisoo luñ bind ci suuf ñi dañ lay yeere bëgg laa woon ne tux baaxul wala genre mais man li ma bëgg a xam mooy yéen rôle bi ngeen di joué hmm. rôle bi ngeen di joué banditisme bi banditisme bi lan lay lan lay yee sénégalais lan la leen lan lan la leen di apporter man loolu laa bëgg xam. lan la leen di apporter. comme banditisme bi comme tey mm. man su ma demee ci mbedd mi nii tey euh, damay dajeeg policiers yi ñu may tooñ naan ma li ngay def inspecteur John doo ñu ko def de te am na benn inspecteur aussi bu ma dajeel sama tonton la. Mm-hmm. Euh, jabaram daf dafa jël téléphone ne ma dama laa fan parce que affaire bi day yeete xam nga lu tax tey déjà man inspecteur yoon li ma nekk di dundeek moom xam nga tey inspecteur de police la. Mhm. man enregistré naa ko filmé naa ko def naa ko lu ne parce que xam naa ne man bandi laa te mën na maa jàpp suba. Mhm. léegi bi ma bëggee jàpp nan laa def dama kaa menacé. Mhm. ne ko yor naa say def ko lu nekk moom man ma def ko ko. léegi moom suba benn inspecteur bu dajeeg benn jigéen dina nanguwaat mu vidéo ko. Mhm. bu ko seetaanee du nangu mu vidéo ko wala bu ñuy wax bu téye téléphone am xelam dina ñaaw parce que na ne ah man de seetaanul naa mërs te gis naa xale bu jigéen bu capable bu fa nekk boo xam ne day enregistré ay wax di filmer effectivement waa foofu laay waxee côté boobu dinaa ci xaw a d'accord ak yow damay ñëw ba tey ci chantage bi nga doon wax hmm. gis nañ ni euh, récemment coach mooy coach xam nga daan na publier ay xale jigéen. liñ mm. daan def ba ci xale góor yi. Mm. gis nañ ni coach ñëwaat na yow coach li muy def ànd nga ci ak moom wala àndoo ci ak moom. ah Aïcha foofu moom mënuma parce que man xamuma coach. dégg nga coach. ma coach. dégg nga yàlla mënoo nekk ci dëkk bi te doo dégg coach te te franchement man ah man gis nga man duma juger kenn parce que nit ku nekk li ngay def sa vie ndax man li ma sentir maa ngi koy def kon ku nekk tamit li nga sentir rek ngay def. noo du sa vie sax euh, xam nga gis nga coach day jël day day dalay avertir ne la soo deful lii wala soo deful lii dinaa dugal sa vidéo mm. léegi dama bëggoon xam yow coach loolu muy def xale jigéen ñi ak xale góor yi di dugal seen vidéo di leen di leen di di leen di leen weer ànd nga ci ak moom wala àndoo ak moom. moom laa lay expliquer. non dama bëgg nga nga nga nekk ci benn côté. soit nga ànd ak moom soit nga bañ a ànd ak moom. non xam nga lan laay wax que jigéen ñi nañ góor góorlu rek nañ góor góorlu rek parce que àdduna yàggul te nit ku nekk dëgg la li nekk sa destin day am te jigéen dañ ko war a suturaal lu métti métti mais ñun tamit nañ gën a góor góorlu te gën a am fulla rek te xam ñun ñooy kan. mais gisoo ni coach li muy def baax na aussi parce que tey jii coach ñu bëri tey jii boo nee xale bu jigéen envoyé ma sa photo xale bu jigéen lan la lay wax baa dooma coach kon ça veut dire ñu ngi siy bàyyi xel ñu ngi bàyyi xel ni suñu yónnee seen vidéo wala ñu yónnee la sa foto mën nga leen mën nga publier mën nga blan mën nga balancer seen seen vidéo donc euh, est-ce que gisoon tamit loolu c'est bien. xam pour xale jigéen yi di bàyyi xel. xam nga nit gis nga nit ku nekk dafa am sikk ci àddunaam mhm. man mën naa ne dara duma ko def sama àdduna parce que dama respecté sama bopp mais tamit euh, du tax du tax nga critiquer nit wala nga xas ko wala nga saaga ko ndax nit matul mhm. gis nga nit ku nekk am na sikk ci àdduna mhm. man am naa sikk yow am nga sikk mais gis nga nit dangay xool foo xam ne dafa faible wala foo xamante ne baaxul ci moom nga jëm koo changer comme xam nga comme tey bu doon man la ma gis sama benn moroomu jigéen di def yu bon duma ko xas duma ko saaga juste que dama koy woo ne ko àdduna nii la ak nii la nii ngay def ak nii la danga war a am ay doom sàmmal sa vie sàmmal sa sa àdduna xamal looy def defal li defal laa mu changé mais xam nga yande ñëpp yemuñu mm-hmm. tey jii amaana yow ku la woo teg la ci yoon di nga dégg mm-hmm. mais am na ñoo xam ne boo leen woowee teg leen ci yoon dañ la naan sa yoon nekku ci c'est ma vie donc coach tey jii balaa moo dugal vidéo wala mu dugal photo da lay prévenir soo nangoo mu dugal soo nangoo mu bàyyi mu sedd soo nangoo mu dugal. léegi loolu loolu mooy wane nag comme loolu laa lay wax rek xam nga nit ku buggul baax comme ni nga ko waxee du baax. Mhm. vie que nee nga da leen di prévenir te taxul ne dañuy continuer di def. Mhm. kon yow jàpp nga ne kon kon bu continuer di leen dugal. est-ce que duñu continuer rek di def ndax li nga wax rek nit am na noo xamante ne ni nga ne nga nit ñi yemuñ mhm. dafa am ñoo xamante ne nee nga dañoo dëgër bopp kon foogoo ne buñ doon buñ leen doon dugal seen mille photo wala seen mille vidéo tamit du leen am na ñoo xamante ne du leen saf moo tax ma ne la wax rek moo am solo nga wax rek def te yàlla rek a tax xam nga tamit yàlla dafa bëri sutura mhm. te dañ ne képp koo bëgg a yàlla sutural la da ngay bëri sutura ci sa bopp sutura dafa baax ci doomu aadama man mën naa jot ay vidéo yu dul jeex sama téléphone dama koy supprimer duma ko yónnee sax mag bu ma bokkal ndey ndax ku ma ko defoon wala ku ko defoon sama mag du ma neex loolu moo tax man je préfère ma wax mu ma gënal ndax sutura mooy nit yéen a ko déggandoo noonu yande léegi mën nañ ne porteur de voix la donc euh, day joxe ay conseil léegi yande gis nañ ne xale jigéen yu bari suñu commencé feeñ maanaam suñu génnee ci série yi wala ñu nekk ci télé dañuy changer dañuy changer seen vie dañuy dem ci boîte yi dañuy def lu leen neex lan ngay wax xale jigéen yooyu mm-hmm. avant tout sax yow est-ce que meloo noonu yow xam nga ci dara non mais man mën naa xam mais ñiy seetaan xamuñu yande ñiy seetaan tamit mën nañ xam mais am na ñu dul xam tamit mais est-ce que di nga fréquenter boîte yi mënul ñàkk des fois des fois damay dem Sidi Diop des fois damay dem Sidi Diop duma la fen parce que Sidi sama xarit la sama nit la te daf ma bëgg te yàlla tax comprendre nga. Mhm. dafa ma bëgg te yàlla tax El Hadj tamit ku ma yëg la fu mu nekk daf may woo lu nekk dafa ma koy defal ñoom dañ maa bëgg dañ maa yërëm mais du tax tout le temps may dem aussi dinaa tëbal lu yàgg. dem benn xam nga nit nit rek la mën a doon. Mhm. des fois mun nga toog stressé wu wala sii di woo la wala benn élage kayta woo la da ngay dem parce que da ngay xam ne ñii samay nit lañ ndax am na moment yoo xamante ne dafa métti woon gisuma kenn ñoom rek laa gis ñooy génne seen xaalis jox ma bañ ma bon lu nekk ñu koy def ndax man. kon ñooñu bu ñu xewlee pour ma doole leen mënuma leen may xaalis mënuma lu dul dem wala ànd ak samay nit dem toog ñu gis ma après ma dem ñibbi mais nag taxul may dem di fréquenter boîte yu ne wala may taxawaalo fu ne aussi tamit parce que mooy loolu xam nga ni. léegi yow ban conseil ngay jox xale jigéen yi nga xam ne dañoo changer léegi parce que léegi ñu ngi feeñ dañuy dem ci boîte yi dañuy toox dañuy naan lu leen neex lañuy def ban conseil ngay jox ñooñu parce que ñooñu. seen bu yàqoo yéen tamit seen der day yàqu parce que dañ leen parce que boo gisee CV bi dañoo jox euh, animateur animatrice yi ak actrice yi dañ leen dañ leen dañ leen jox même étiquette dañ naan ñoom ñëpp dañoo yobbu mm-hmm. à fois da nga ñu naan animatrice yi actrice yi ñoom ñëpp ayam dañoo yomb donc yan conseil ngay jox ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ñuy coller étiquette boobu noonu animatrice yëpp ak euh, actrice yëpp xam nga gis nga àdduna nag ñépp lañuy waxal ndax yow mii sax des fois nga romb nit te xamula mu waxal lu bon tamit mhm. bàkkaaru mhm. ñépp lañuy waxal te nit ku nekk tamit sa vie nga yor comprendre ga nit ku nekk sa vie nga yor nit ku nekk am nga droit def lu la neex mais nañ bàyyi suñu xel rek comme ñun ñépp laay wax duma duma yedd su ma leen di yedd dama yeddaale sama bopp parce que ñoom jigéen lañ man jigéen laa kon du ma ne ñoom mais damay ne ñun nañ xoolaat suñu bopp rek te gën a góorgóorlu te xam ne showbiz boo ci nekkee rek da ngay gën a góorgóorlu gën a defar sa der yéen a ko déggandoo noonu kon bàyyi leen xel bu baax ci loolu ngeen xoolaat ni ngeen di dundee moo gën Yandé gis nañ ni euh, saison mars bi jeex na entre temps lan la Yandé di def da nga am yeneen contrat wala dafa am leneen looy def. waaw yeneen projet moom mënul ñàkk moom mën nga dugg ci dara mais moom instant bi moom waa Mœurs ñoo moom moom waa Events Pro moom même bu may dugg ci dara it dinaa leen woo ñoom waxtaan ak ñoom parce que ñoom franchement amuñ benn problème boo liggéeyut ak ñoom ñoom sax ñoo la naan demal nga liggéey feneen mais nag vu que bi nga toogee kenn gisu la ñoom ñoo la jël defar la ñoom ñoo la génne ba nit ñi mën laa bëgg tey kon ñooñu tamit lépp looy def nag leen war a delloo njukkal rek. boo demee ba pare si ñoom nag boobaa nag am nga sa liberté boobu nga def après lu la neex. donc instant bi munoo dem feneen munoo nekk feneen mun naa nekk feneen mais munuma signer tey jii bu bu la benn comme tey jii bu la woon pour nga def benn publicité mën ko def. mën naa kaa def tey jii bu la benn télé woon pour nga ñëw nekk animatrice parce que gis nañ ni sa début commencé nga commencé woon nga nekk animatrice DTV. Mm. donc tey jii bu fekkoon benn télé dala woo pour nga ñëw nekk animatrice doo mën dem. non ñoom amuñu problème boobu mën a nekk animatrice mais tamit dama leen di xamal ne que maa ngi ci benn série ba nga xamante ne ñoom buñ ma soxlaa damay dem ci ñoom ba pare soo ko ñëw continuer def sama animation. may ñëw si affaire animation bi lan moo tax nga bàyyi affaire animation Yandé. pourtant bàyyiwuma ko de. mais dañu la gisatul fenn. du sit du télé. c'est parce que xam nga am na fenn boo fa nekkee. Mhm. comme nekk ci benn film boo xam ne doo am jot xam nga tournage dafa metti surtout tour booy tourner série dafa metti doo am temps dangay ngay nekk tout le temps dañ lay woo mën nga nekk sax tëdd léegi ñu yore ne soxla nañ la 14 da ngay dem léegi boo nekkee ci loolu da ngay préférer concentré wu ci loolu rek bu paree après nga dem songu leneen mais man yow xam nga ci dara. kon instant bi daal pare nga pour nekk ci mën nañ mën nañ xaar Yandé mu nekk ci benn télé wala ci benn site. waaw incha allah yéen a ko dégg noonu kon yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen gisaat Big Mama mën ngeen ko xaar ci télé wala ci euh, site yi Yandé lan mooy sa dernier moom lan ngay wax mbokk internet Sénégal 7 TV. kontaan naa si yéen trop mhm. franchement. ndaxte bu leen neexoon du ngeen ma invité parce que man ak ñu bari ñoo fa nekk. te en plus boobu ba tey yéen ak may woo. dëgg la ñu baax ngeen. yaa ñu gën a baax. waa maa kontaan naa ci yéen ndax bi ma duggee fii sax dama sax kontaan ndax fii yàññi na macha allah. neex na set. toog naa. set bi moom. dafa neex daal fii moom man daal kontaan bu ma sañoon sax dama fi fanaan mu fi amoon nekk sax tëdd. mais da ngay ñëwaat parce que yande pareeguma ci yow temps bee ñu xaw a xoj mais di nga ñëwaat parce que yande di nga ma wax tey jii di ma wax di di nga ñëwaat wax ma animateur beeg <laughs> manager beeg musicien bi kan nga ciy génnal parce que loolu sénégalais yëpp ñu ngi koy xaar bëgg nañ ko xam ñett ñooñu yande foog mu wax kan la ciy génnal te dinañ ko wax ndax dinañ ko indiwaat fii ci Sénégal nii lay demee saa su ne fii ci Sénégal 7 di leen jox rendez-vous d'ici là portez-vous bien mën ngeen ñu xaar nag mën naa indi ndaanaan fii wala mën naa leen mën naa fekk ci ndaanaan à chaque fois ci mu leen di neex d'ici là portez-vous bien merci beaucoup